xeetu yi la Amadou Diaw moo ñu ko jàngatal. ci mboolem yéenekaay yi ñu jot niki tey jii ñu door ak yéenekaay bi di la Tribune la Tribune xëy addu ci drame bi nga xam ne nag daal dina am ñetti kilomètre ci côte yu Sénégal lu toll si juróomi téeméeri nit yi nekkoon yi wutali woon mbëkk mi nag daal nañu nag am jafe-jafe yéenekaay bi duñu xibaar ni lu toll ci ñaari téeméer yi nga xam ni nag nekkoon nañ ci ab gaal. boobule gaal nag dafa mujjee daal di suux ñeenti nit ñoo ci ñàkk seen i bakkan ñu mun cee lim ñetti góor ak benn jigéen ñeent ñi nga xamante ni nag jal nañ leen génnee te ñu daal di dund yóbbu nañ leen foofu ca hôpital Grand Mbour yéenekaay bi di ñu xibaar nag du toll ci ñetti téeméeri nit ak ñeent ñu mun cee lim. ñeenti jigéen ak ay ñetti xale dañ nañ leen teg loxo tamit foofu ca Bargny fanweer ak juróom ñetti candidat ak ñetti convoyeur ñu daal di leen interpellé foofu ca Mbour lii quotidien yéenekaay di ñu xibaar ni suuxu gaal foofu ca Mbour te ñi nga xam ne nag ay ndaw nekkoon ci ngir wutali mbëkk mi lu toll si ñaari téeméeri nit jamono ji nag kenn xamul fan la ñu nekk ñeenti nit ñoom ñoo si jot a ñàkk seeni i bakkan am ñeneen ñeent nit ñu daal di yóbbu foofu ca hôpital bu Mbour yéenekaay bi nag lu toll si ñaari téeméeri nit nag ñoo tàggoon ngir wutali foofu ca mbëkk mi l'observateur yéenekaay daal di delluwaat ci boobule embarcation bi nga xam ne nag daal na bàyyeekoo foofu ca mbuur yéenekaay bi daal di jox kàddu kenn kii nga xam ni nag bokkoon na ci boobule gaal mu daal di xamle ni nag ñaari téeméeri ndaw la ñu woon mu daal di xamle ni nag amoon na juróomi jigéen ak ay ndaw ñeent ñi nga xam ne nag daal nañ leen yóbbu foofu ca urgence ci hôpital bu Mbour daal nañu xam seen identité yéenekaay bi dañu xibaar nag ñoo si jot ñàkk seeni i bakkan yéenekaay bi di laas ñu daal di fa fekk élimaanu jëwriñ moom usmaan Sonko ci bis bu muy amal set setal foofu ca Matam yéenekaay bi nag di ñu xamal ni jamono ji moom Ousmane Sonko nag mu ngi ci tànk titre foncier bu président Macky Sall foofu ca diwaan bu Matam loole nag ginnaaw bi ñu ko teeree foofu ca diwaan bu Matam le soleil yéene kaay delluwaat ci référentiel politique publique fii ci réewu Sénégal ci bis bi nga xamante ni nag moom la elmaanu jëwriñ jiite li di seet setal foofu ca diwaan bu Matam ci li soxal wàllum phosphate moom elmaanu jëwriñ Ousmane Sonko daal di delluwaat nag ci gouvernement bu Sénégal taxawaay bi mu ci fas yéene am ngir ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo yeewoo ci boobule diwaan mun cee gis seen bopp ci li soxal tamit gestion phosphate fii ci réewu Sénégal ñu daal di cité réewu Maroc comme exemple te Sénégal nag te gouvernement bu yees bi nag fas yéene si taxaw temm ngir mën a jàppale xamante ni nag ñoom ñoo yeewoo ci boobule diiwaan beneen diiwaan muy ca Falémé ci bi di Sud Quotidien ginnaaw bi gouvernement bu Sénégal nag orpailleurs yi nañu arrêté seen liggéey jamono ji ñoom ñi nag ñu ngi daal di wéyal seen liggéey donte ni niki fanweeri fan ak benn ci weer juillet ci décret présidentiel moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye dàqaloon na nag boobule liggéey bañ baatum 2027 foofu ca Falémé mu mel ni nag ba léegi liggéey baa ngi wëy Walf Quotidien yéenekaay daal di delluwaat ni banque bu diaspora bu Elimaanu Jëwriñ Ousmane Sonko xamle foofu ca diwaanu maatam ci bisu set setal yéenekaay bi di ñu xamal ni jamono ji nag projet bi dafa mel ni dafa daal di topp tànk plan Sénégal émergent bu président Macky Sall les échos yéenekaay di ñu xamal ni Ousmane Sonko xamle na ni président bu senegal Sénégal Bassirou Diomaye fay dina janoo askan wi ginnaaw nag tukki nemmeeku bu mu amaloon foofu ci réew bu Chine dina xamal sénégalais yi naka la fekkee réew mi ci boobu lay ponk moom Ousmane Sonko di ñu xamal ni nag jëwriñ yi fi nekk ñoom tamit ku nekk dina daal di jël kàddu ngir amal ay explication naka rek la liggéey bi daal di doxee l'info foo kaay ci li soxal adresse à la nation bi nga xam ne nag moom président Bassirou Diomaye Diakhar fay namu na ko amal moom Ousmane Sonko nag daal dina si àddu di xam le ni président bu Sénégal dina daal di àddu ci boobule mbir yéen boobu lee xibaar yéen bi daal di delluwaat ni Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye loolu ginnaaw nag bu mu nekkee li des slogan jamono ji nag nekk na ab réalité ndax saa yu Ousmane Sonko waxee nag moom président Bassirou Diomaye Faye mu daal di ko jëfee le quotidien yéen kaay ci li soxal symbole de la république ñu daal di si gis fan yi lii di jub jubal jubanti ndax du looloo nekk lii di devise bu yees fii ci réewu Sénégal ginnaaw bi devise bi nekkee un peuple un but une fois mu mel ni ci timbres fiscaux yi ñu daal di jot foofu ci direction générale des impôts et domaines daal nañ fa nemmeeku tamit slogan bi di jub jubal jubanti. libération yéenekaay daal di xëy àdduna section de recherche ak division des investigations criminelles ñoom tamit daal nañu sumb loolee ngir fas yéene nag taxaw temm ci ñenn ñi nga xam ni nag daal nañ leen tudd ci ay dossiers ñu daal di fas yéene nataalu moom Ibrahima Ndoye nekk procureur de la République affaire Prodac agent judiciaire bu état daal dina constitué wu nag ci partie civile lu ëpp fanweeri nit ñu daal di leen tere génn réew mi te police de l'air ak police des frontières daal si tàmbali def liggéey Abdoulaye Sow nekkoon fi jëwriñ waroon tukki ak équipe nationale ànd ak Mamadou yi fi nekkoon directeur des domaines ñu daal leen téye foofu ci aéroport inter